bari na loolu lu ko lënt ci biir luy dox ci biir ñañ maqaama yooyu la tuuti ci kanam daan dellu si ci abdullahi dellu si ci xaadimu rasul bi nga xam ne martaba la boo xam ne mbindeef mësu cee ñëw lu dul moom te xëy na kenn du si ñëwaat moom rekk ko wéetoo suñu borom ba mu ko tànnee la ko tànnal maqaam moomu jagleel ko ko te du ci boole keneen jàng bi nga xamee ne ci Abdullahi àgg na ci cat loola le nga xam ne delloo na bi mu goree ba noppi fabaat na boppam joxe ko addiye joxe bi mu joxe boppam nga xam ne ci coobare la wéti naag liggéey ba nga xam ne dafa liggéeyoon ba sell ci lépp lu dul yàlla léegi bi nga xam ne dellu si na ba nga xam ne dafa joxaat boppam mayaat boppam boromam booba la seey ci moom ba mel ne suukar si nga waxoon ak ndox mi ana ko kan la suñu borom day fab li mu bindoon lépp teg ci loxo mu ni zimaamul wara asri la dallahi fi yadi wa ma rumtuhu min malikin qaada bil hamiyi zimaamul wara mën nañ koo amee ci ñaari martaba waaye martaba bu njëkk bi nekk bu mu nekk sa des na waaye bu ñaareel ga dana nekk sa nekk bu mag boo xam ne du ànd ak tàggoo du ànd ak yëgoo ah al awdiya <coughs> bi ci jëmm ji tolloo nga xam ne dafa taxawal yàlla ci suuf dend bi moo fi wuutu suñu borom suñu borom xool wu yërmandeem bi du ko xool lu dul ci jëmmam kooku rek la koy xool benn jaam lot na ci am dara ci yàlla te jaarewul ci loxo kooku kuy texee kuy texee wund wi sax ba lay jàpp janax ji ci ndigalam lay doon neexu la leeral ndax ko nit du neex a dégg waaye ngelaw li naaw sax ci ndigalam lay lay naawee ko waxe ko ko xamul mu ne da nga ko teg place yàlla waaye place yàlla ndax xalifatullahi fil ardi taxaw taxawaay yàlla ci kaw du nit uuti lu foor booba waxuma booba nosu bindee ci alwara arab yi daal di ko wax jublu ci nit ñi rek waaye fii ci maqama bi du nit ñi rek lépp lu yàlla bind la jëmm jooju nga xam ne dafa wees nag maqama yi ba àgg ci li ñuy wax afraadul aalami afraadul aalami ñoo nekk ca kaw xutbul xaws martaba la bu nekk diggante sidiqiyatul uzma ak nubuwatu tashria afraadul alami yi dañoo rawante ñoom seen bopp yemuñu ay foofu la tàmbalee maqaama wa yaxluqu ma la taalamuuna amatuñ sa tur xamatuñ sa maqaama xamatuñ sa martaba soo àggee foofu say nelaw boo tàmbalee nelaw bindee fi yàlla bindeen yépp di jaamu yàlla ak fu seen martaba mën a toll fu seen xam-xam mën a toll sa nelaw yooyu moo ëpp tuyaaba buñ boolee seen jaam boobu yépp ma tax سن بنا نومي عبادة رب لا شريك له قلبي يدبر آية في الحكمة لو تخ كبير مقام أفراد العالم يقول لك أبقى تفو خمنا أفراد يكسين بق جمل لين عند حمود الوضع وحمود ولي قال سرا غابة غيره المحيي su borom denk na mboot moo xam ne ku dul moom ci jëm moom dong moom yàlla moo ko xam du keneen du mu wala mu xëy ci yàlla ba xam loola mu doon wala na mu demee wala du ko tax a jóg jëmm di xettalik yàlla mbindeef yi di yërmande yàlla ji mu wàcce ci dënd bi mel ne taw bu nawet bu sébbi ba tooy daanu dikk tuuti ci dun yi wax diggante sëriñ taalibeem ci wet kooku waaye wa war war bi njëkk war ci képp koo xam ne da nga ci kooku wala koo xam ne ku nekk ca suufam la sa warugar wi jiitu mooy jéem koo xam lu tax ndax nga sopp ko cofeel gi nga xam ne lu war a war la farat la jox xam ne mënu la ñàkk ak ah, jëflanteeg moom jëflante ba ca yàlla xam ngeen ne koy teel te joxuloo ko xaqam ci teg yi ya ko war a teg tooñ nga ko saxaaba yi ñi ci dëkk ci àll bi dañ daan def bu ñu ñëwee Madina ñu am xew-xew bu xew seen diggante yonente bi sallallahu alayhi wasallam war ñeena àtteel dañu mel ne kuy wax ak sa morom rek buñ tolloo ca gannaaw kër ga naan yaa muhammad waxuñu ilayna xataa na taxaatuma ilayka muhammad génnal àtteelu ci yërmande suñu borom ci yërmande rasulullah sallallahu alayhi wasallam xamal leen leen loolu day yàq jëf ndax manqué ko teggin la إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم أيوة الله غفور رحيم خبونه bu ñuy wax ci jotaay bu mu nekk ñu mel ni bu fi ñëwul woon alquran dellu si dal ci seen kaw yaa ayyuha alladina amanu laa tarfahu aswaatakum fawqa sawti nabii wala tajharu lahu bil qawli ka jahri baadakum li baadin an tahbata amalukum wa antum la tashuruna bu ngeen toogee fi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen di wax bu leen biral seen kàddu ne bu ngeen di wax ak yéen di seen bu ngeen di wax ak yéen di seen bopp na ngeen feeñal seenu toroxlu ak seenu yar ak seeni teggin ngeen wax wax ju ndànku ànd ko dal ngir sàmmonteeg xadra ba ndax ni nga xamee ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yónni diñ ko yónni ci jaam ñi tax na mu summi ko juróom-ñeent fukki junni mbubb ba dese juróom-ñaari mbubb ngir mën a niroo mbindeef ba ñu mën koo roy ba ñu mën koo miin jaxasoo moom dégg li muy wax waaye ni ñu koy faral di waxee rek xul bul xaw ci boppam rek gannaaw xolam du jot mukk ca pay pay sun borom ba ca xasal xasalatul kursi boo toogee moom da ngaa war a mel ne ni ngay toogee boo nekkee ci xasalatul boo toogee sun borom tabaraka wa taala wala nga toog rasulullahi salaam te gi nii nag loo ci manqué rek loo ci wàññi rek mu yàq sa jëf sa jëf ji nga jëfoon ci jëf ju baax moom lay yàq an tax bata amalukum ko antum la tashurun ngir nag sëriñ si xam taalibe yi xam nu sëriñ bi mel ba mën a jëflanteeg moom te du ñu duñu rek yàqule bari na loolu nit dana xëy ci suba di tabax ba jant so